di loh xamne ne na lu ci bari dañ koy tariwaat rek ndax bay jangale kat la oustad la ci mbor mu ngi ñaan yalla gën ko dëgëral te gën ko sam te gën ko katanal ba xam-xam yu mu dajale yépp mu man ko génné jëli ñëpp jarñu ci doomu yépp jarñu ci di siari itam sëriñ Abdul euh mi nga xamne ne mo koy jappalé ci liggéey bobu ginnaaw loolu nu war a waxtaane lu aju ci tukkib sëriñ bi xam ngeen ni sëriñ bu mag bi eh, ci weer wii la génnoon tukki mu weeru safar weeru safar nag weer wu yàgg a bari yu ci xew la mbir yu metti itam yàgg na ci xew ak mbir yu tiis ak mbir yoo xam ni xew-xew yu yu yu yu indi ay jafe-jafe yu rëy da ca yàgg xew ba tax na sax buñ seetloo ñu njëkk ñaa njëkk dañ ko daa gaafal dañ ko daa gaafal eh, ngir rawatina bu ne ci bu dee ci arab yi ñoom ci la eh, al ashhurul xorum di jeex muy weer yi nga xam ne kenn du ci xeex weer yooyu nag bu jeexee rek ci la xeex bi daa tàmbali te alashurul xorom bi ci mujj mooy muharram xanaa bu jeexee rek safar day ñëw xeex yi tàmbali coono yi tàmbali jafe-jafe tàmbali mettit yi tàmbali moo tax ñu bari gaafaloon ko waaye nag weer bu bari ay ay xéewal ak i tawféex sëriñ bi nag moo ko dundalaat moo ko feeñalaat ba ñëpp xam li ci ne maanaam ne eh, weeru safar ci la rasulullah sallallahu njëkk daanu tawat loolu xam nga mettit la ci la euh, xare bi mu njëkk xare yitam ci la ko njëkk a def maanaam ci la gàddaay itam jóge madi makkal makkatal mukarrama jëm madinatul munawwara ci weeru safar la woon euh, àgg fa nag ca biir rabiul awal muy muy gàmmu wéradi gi noonu la da ko daaneel ci safar ci ñaar fukki fan ya ak ñaar mu noppalu nag ca eh, ca ca ca ca gàmm ga am na ñu wax ca ñaareelu fan ba borom umdatul qaari loolu la ci wax am na ñeneen nag ñu wax ne fukki fan ak ñaar la ba tax na muy weer woo xam ni yooyu ci xew sëriñ bi itam xam nga ci génn ci la ci lañ ko ci la ko tubaab yi génne ci réew mi yóbbu ko ca tukki ba waaye buñ seetloo yooyu ci xaw yu ci ne xéewal la sëriñ bi ab tukkeem ku ne xam na ne moom ci moom bu masaa ba mu dellu ba mu dellusee ba di ko nettaliwaat buñ ko masaa di metitlu day wax ne bu xewutoon de bu amutoon de moom tukki boobu dara du ko jar ndax lépp ci la jage waaw rasulullah itam daana wax ne sama dem sama génn àdduna xéewal la ci yéen xayaati la ko ومماتي خير لكم تمجو حديث بدا وخني سما ген ادنا مانام تعرض علي اعمالكم فاستغفر للمسيء او كما قال عليه الصلاه والسلام معنام حديث بي موي يونتو وخني سما ген ادنا خيول لا تي ين نخ بما ген ادنا فما نه لي نين دي ديف ليب دنج ماكاي وان كو تي ديف او نياوتيف با نجومتي با لودول نونا ما جيغلول لا سون بروم تبارك وتعالى moo loolu xéwal la eh, waaye nag am na yeneen mbir yu ci yu ci xawal masalan ci la ci bi jël soxna Khadija radiyallahu anha mi nga xam ne ci njabootam diggam ak rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ci la njabootu yonente bi dese ci kaw suuf soxna Fatima itam mi nga xam ne njabootu yonente bi yëpp ci moom lañ jaare ñi fi des moom it ci la ci weeru safar wi la ko Seydina Aliyu jël nga xamne ne ñi nga gis ñuy sëti yonante bi rek ci soxna Fatima mom lañ sëtoo ci sayyidina hasan ak al euh ñu dessu ba ba ba ba sun jonne tay ji kon safar wéru sel la wu am solo la wu euh, am solo la wo xam no ngi ci ndokkel julit ñëpp di ñaan sunu borom tabaaraku taala mu dajaleñ ci ak eh, mboolem xéewal yi ci ne ak njariñ yi ci ne màggal Tuubaa nag bis la boo xam ni ni ma ko waxee ci la sëriñ bi génnoon doon liggéeyali Rasulullah sallallahu alayhi wa di bis bu rëy ci yoonu murit ndax Cheikh Abdou Lahad mu baax ma daa wax ne bis bi ba mu génnee sunu borom ci la nattu yi ci la ko tàmbali nattu yi ci la tàmbali di natt yu mette mette mette mette mette yo xani bu ñew rek da nga yakarne li dara gënu ko man wara dara dootu ko gëna metti ñu tégaat ko yo xamni moy gëna metti di rub diirub ñaari at ya nak ba mu maté ba tek cey wër ci la ñibbisi suñu borom tambalé di fay sëriñ bi nee suñu borom di def bu ko fayé tay, ci at mi ci misaal rek téeméer bu dewee déwénee da ci yokk yeneen téeméer mu ñaari téeméer bu déwén jéege mu yokk ci yeneen ñaari téeméer muy ñeenti téeméer nga xam ne at mu ne lam ko fay bu del si bu waxtu wa del see da koy da koy ful lu ni toll joxaat ko loolu nag nee na la doon def ak moom di ko def ak moom ba ni mu ñëwee njaareem nee bi mu ñëwee njaareem nag la wax ne man day lii ma suñu borom fayee ci tukki bii day eh, moom eh, kawe sama njort ba tax na maa ngi woo ñëpp képp koo xam ne sama mbég sa mbéga maa ngi sàkku ci yow bu bés bi delsee delsee tee nga dem ci sant la yàlla loolee moo sabab màggalu Tuubaa loolu nag at mam ko woote daa am wuute am na ñu wax ne 1918 la am ñu wax ne 1920 am ñu wax 1921 sëñ Mawlaay Bousso at mi mu wax mel na ne 1921 lay tolloon waaye sëñ bu Mbàkke at mi mu wax mel na ne 1920 lay tollool sëñ Moussa Ka at mi mu wax mel ne 1918 lay tollool bu ma juumul ñetti ñi daal kenn ñetti dat yi ñoom ñett yooyu ñoo ko wax bu ma juumul ci tofla bi toftale bi waaye euh, xëy na sëriñ bi mën na koo digle ci at mi te ñëpp yëguñu ko at ma ca topp mu fedd liwaat ko am ñu ko ca yige jàpp ne moom moo njëkk loolu yëpp mën na ci am waaye lu mën a xew daal sëriñ bi moom moo digle bis bi saa yu ñewé ñu lé ko ci yalla li tax nak mu diglé ko xéewal yu bare bari la yoy ko sun borom defal yo xamni ni desut sut mëna lepu wax lépp na xamé sut sax lépp ndax mom mi nga xamné mom la ko sun borom jëflantel nee na kawe na njortam waxut lépp té lam ci wax ko si xajut ci jotaay mën na cee wax rek ne ci géej gi yi mu wax ne yàlla defal na ko ko suñu borom defal na ko ci géej gi bokk na ci mooy ci géej gi la ko suñu borom defee muy jaam bu mu sequt ak kenn boo xam ni yàlla kese kese kese moo ko moom yilif ko euh, sequ ko kenn dara nekkul ci moom lu may yàlla sunu borom rek maanaam jaamu yàlla boo xam ni sunu borom sequ ko kenn. ci géej gi itam ci la àgg ci mboolem yi nit yàlla yi àgg dayuwaayu dayu yu kawe yooyu ci la ci àgge ma di wax ne maanaam kamalul maarifati billahi subhanahu wa taala wa kamalul yaqini bihi kamalu al wusuli ilayhi ak kamalu taxaquq taxaquq loolu lépp foofee la ci amee ma di wax ne saadati bi gayri maxwin kutibat wa kawniya al abd al ci géej gi itam ca la ko suñu borom defee muy xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yàgg naa bëgg a bi di wax ne wa qalbuhu admaraha min asasi wa adharal xidmata ama jaysasi wa qalbuhu admaraha min asasi yàgg naa bëgg a liggéeyal yonente bi waaye nag ci géej gi ci lañ ko nongule mu nekk nag xadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne suñu borom ci moom moo ko moo ko moo ko moo ko moo ko jox wàcc waay woow muy kii liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ila alladi yaa rabbana awsil salaama yil qadim ila alladi sirtu ji liggéeykatub yonent bi sallallahu alayhi wa loolu nit ki mën na ko tudde boppam waaye nag yonent bi nangul la ko suñu borom nangul la ko سن بروم تيوم تودي لا نونو سميتني قطعا بعبدك الخديم وانا لولو ام سن بروم كو تودي العبد الخديم عبد الله وخديم رسوله صلى الله عليه وسلم لول نك تي جي جي لاكو امي بوكنا تي تام لي واخ ني سن بروم ديفال نكو تي خيوال يويو موي فالاكو سن بروم جوخي سر القران الكريم سر القران الكريم اك بركب القران الكريم اك ليرك القران الكريم ساكو يتام باتي القران الكريم اك معناي القران الكريم jox ko leerug dégg nga làkku arab bi jox ko njariñ yi itam eh, xam-xam yi ak seeni barke loolu it ca géej ga la ko ko sunu borom tabaaraka wa taala defale eh, ba tax na mu wax ne xawaytu fil quraani sirran wajaba an laa yazaala abadan muxtajaba wala muxtajiba eh, nekk noonu itam ca géej ga fa la ko suñu borom joxe awraadi turuq yep ndax ñeek muy dem ci geegi jëlon na wërde yi waaye da ko jëlon ci ay càll la nee na ba ci geegi nak la sun borom yabal Sayyidina Jibril mu nangu mbooleem lu ko nit joxon ci ay awrat yónnante bi nak ci ndigalul sun borom manam ñew joxal ko ko bopam nam ko joxawon borom turuq tariqiya motax mu daan jëfandikoo ak a joxe mbooleem awraad yépp waaye nag da ko jële ci yonante ba na ko ca seeni borom jëlee loolu ci géej gi la ko amee ci géej gi nee la ko suñu borom def mu mel jant ci daraja ju yëkkatiku ak euh, maqaama mu kawe ak njariñ lu bari ak xéewal yu yu bari foofu loolu ci géej gi la ko ko suñu borom defee jant bi xam nga mooy li tiim lépp nga xam ne boo xasee fenk dara dootu leer noonu nii la ko suñu borom def nag ci biir gaañi suñu borom yi ci géej gi itam la ko suñu borom boolee ci ahlu badrin alkiram maanaam daraja ja daraja yi waa ko ko suñu borom boole moo wax ne addani allahu min ahli badrin alayhim ridwaanu mooli qadri ci géej gi itam ci la ko borom naa naagudoo iblis ci moom nga xam ne iblis mënatul ci moom dara mënu ko yàqal itam loolu ba muy génn rek di dem ca jeewal foofa foofa la foofa xewe ñu wax ne ayasa minni llahu inda jeewali iblisa is naadaytuhu bi yaa wali bi yaa wali wala lainu bi yasin minhu munsarifan wa kullu ma fihi durrun dabba aw taara nga ne lor yëpp ak iblis ak i loram ak seytaane yëpp ci iblis ca géej ga la ko suñu borom daqale ak yeneen mbir yu bari yoo xam ne euh, wax na ko mooy ba mu nekkee Maayomba diir ba mu fa def ak mettit mu fa jànkoonteel ak xew-xew ya fa xew nee na sunu borom da ko cee faye la yonente bi sallallahu defoon ca euh, moom it ca tartar ak mettit ya àndoon ak saxaaba ya la borom fayee lu toll noonu la la ko fayee bi mu ñëwee itam def ñaari at nee na sunu borom da ko cee fayee euh, lu toll ne awliyaa u yëpp ak gaañu baax ñi mas a ñëw ci kaw suuf ñëpp liñ mas a def ci lu baax moo xam lu war la wala lu ñu sopp wala lu yàlla wala lu ñu daganal la leen ci yàlla fay lépp maanaam mboolem liñ jëf te yàlla nangu ko rek la leen ci yàlla fay lu toll la ko ci fay. nee na itam ci géej gi itam la ko suñu borom defale bi mu jógee Lambaréné la ko suñu borom ko suñu borom defal guddi yëpp mel ne laylatul qadri ci moom waaw. nga ne guddi gu ne moo laylatul qadri mooy tolloo ci moom def ko itam muy gaalu Seydina loolu ak yeneen yu baree bari tënk na ko ci bërëb wax juróom-ñaar yoo xam ne bokkut ak yii ma wax wax ne suñu borom nootal na ko noon yi may ko xam-xam boo xam ne am njàng dégg nga sababu ko eh, maanaam ambiyaaw yëpp itam mu puukarewu fi kanam ambiyaaw yëpp ci tukkeem bi moom rasulullah sallallahu alayhi wasallam rasulullah ci moom maanaam maanaam tukki bi mu puukare woo ko fa kanam am ambiyaaw ya ca des maanaam mooy bëgg ci rek mu baaxa ak mu baaxa loolu mooy bëgg ci maanaam bëgg ci wane mbégam itam ci kanam ambiyaaw yëpp moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom itam ci la ko defee muy maanaam képp ku nar a tex rek di ko sopp képp ku nar a tex rek di ko sopp ci la sunu borom naagaloo iblis ci moom def malaayka yi itam ñëpp bëgg ko ñi gëm ci jinne itam sopp ko loolu موم لوخ وفي سبع معجزات للرسول قد ظهرت وقبلها فزت بسول غلب بالمختار ربي للعدا قبل ظهوري لا الاقي من عدا وهب لي ربي علما لم يكن من التعلم وجاءني بكن بها رسول الله كل الانبياء عليهم ازكى سلام ربي بغربتي عشر سنين بخدم خالصه لذي الوجود والقدم يحبني لوجه ربي المعيد بغير بغض أبدا كل سعيد أيس ربي أبدا وهو المعين إبليس مني وكذا كل لعين وكذا كل لعين يحبني ملائك الباقي القديم لوجهه مع فلاح لا يريم قد ودني من آمن في الجن لوجه باق كان لي بالمنه جرم ñaar يلا la ci ci ñu yii nag dolli ci nag suñu borom def ko muy mu am ngërëmam la gërëm ko mboolem nit ñu bax ñëpp it gërëm ko loolu mom la junj ci lim wax ne di lim wax gaay yu bax yëpp radiya anni sibtuhul jilani alayhi ridwaanu alladi a'la radiya anni sibtuhu abul hasan si abul hasan sadali moom bok ci ñi ko gërëm شيخ ahmad التجاني رضي anni سبته التجاني رضي anni الخلفاء الأربعة حزت رضا المقربين المتبع من لم يكن عني يرضى فالكريم رضي عني يرضى الله سياري ما يسون برامج غرم الكوبهم غرم يوي نك اكتاو في اخجو جيب نك تي بير توك بي لوك امي لول نك موتاخ نك بيغا خامي سون بروم ديفال نكو تي لي موي لين تي خام تيم موي تي نيو بيغا خامي سون بروم ديفال نكو خيوال يوي اك يينن اك يينن وقتو دا سانت في ني نجيك موي بيس بي سانت نا sant na ba tay eh, ci biir xasidaam yi boo ko yër da ngay gis ne moom waxtu ne eh, moom day sant sant cant itam sant na ko léeg ñu gis mu wax ne mboolem ñiy sant yàlla seen sant ya ñuy sant maa ngi koy dajale lu ni toll di ko sant sunu borom ashkuruhu shukra jamii shakirin wali naxwiya saqal kafirin شكرته شكر جميع الشاكرين بالقلب تاركا لذكر النافرين أشكره بالقلب شكور الشاكرين ولا شكر الشاكرين لذلك معنى معنى نيد في شكر نيد في معنى تحميد وني سنت يلا تخير تنت يب أحمده حمد جميع الحمدي آه، أحمده حمد جميع الحامدين ولسوايا ساق ذر الجاحدين maanaam mboolem ñiy sant yàlla te ay santkat yu yàlla nangu ceenug cant ñoo ñëpp la ñuy def ci ak cant lu na toll maa ngi koy yëkkati di ko sant suñu borom tabaraka wa taala waaye léeg-léeg itam mu wax ne mboolem ñi wéetal suñu borom tabaraka wa taala eh, lañ la lañ ca maanaam la ñuy def ci wéetal ci ak cant sante ko seen borom maanaam la ñuy seen borom ci ci sa sante ko ko loolu lépp lu ni toll mboolem ñu mel noonu def la tollu toll maa ngi koy di ko sante suñu borom ak ashkuruhu shukra alladina wahadu wa abadu wa axlasu mudrasadu ashkuruhu shukra alladina amanu wa aminu min ashaqa léeg-léeg mu ne mboolem ñi bëgg yàlla cant ga ñuy cant te suñu borom nangu ko ci ñoom nee na cant gu toll noonu yooyu yëpp maa ngi koy yëkkati di ko sant suñu borom ashkuruhu shukral muhibbina maa waaw wa bin nabii lii munaaya jamaa ashkuruhu shukra muhibbin lam yara qattu siwaahu wa siwaahu lan yura léeg rek mu ne mboolem ñi àgg ci suñu borom nag la ñuy def ci cant yëpp maa ngi koy dajale di ko suñu borom ashkuruhu dëhra shukural waasiliin al aarifina bilhuda ashkuruhu shukra alladina wasalu léeg-léeg mu mu wax ne mbooleem ñi xam yàlla aarifuuna billahi la ñuy def ci cant lépp maa ngi koy yëkkati lu ñu toll di ko sant suñu borom ashkuruhu dëhra shukur al aarifin asharibina lil lil utaasi al gaarifin waaw ñi ñi naan ci leer yàlla ya ba mandi xam yàlla dëggi dëggi xam ñooñee la def ci cant lépp maa ngi koy dajale lu toll di ko sant suñu borom nawaytu shukrahu shukura man araf bi rabbihi wa min fuyudihi garaf ñii janloog nag magu suñu borom gi mooy almushahidina ashkuruhu walam yazal dayaana shukra alladina shahadu iyaana léeg-léeg mu wax asharibuna ñi ñii naan ca ca leer yàlla di ca gëndax li ñoo ñee la ñuy def ci cant lépp te di ko yëg ci cant maa ngi koy dajale di ko sant suñu borom ashkuruhu shukra alladina sharibu min azbihi walil jinaani qurribu léeg-léeg muy lim wax ne shakartu rabbi adada al aradi maa samawati maa al agradi maa ngi koy sant mboolem ni feppi suuf yi toll ak suuf yi niñ toll lu ni toll maa ngi koy yëkkati ci cant di ko sant suñu borom asamaan yi itam ni mu toll ak mboolem la ca ne lépp lu ni toll ci cant maa ngi koy yëkkati di ko sant suñu borom ashkuruhu mil assama wal ardi wal arsi wal kursi ni'mal murdi laka shukuriya bil intihaay yaa man lahu shariya dunde lillahi hamdiya fi lillahi hamdi kulla shahrin wa sana maanaam tam weer wu ak at mu ne laa koy def shakartuhu bi adadil ajraami wa adadil araadi bi ixtiraami mboolem li di ay jëmm ci li yàlla sàkk lépp lu ni toll maa ngi koy sant suñu borom li nga ne du jëmm itam di maanaa ci misaal xam nga baax ak tabe yooyu ay maanaa la wala nelaw ak yeewu ak euh, gëmmentu ak guddeeg bëccëg yooyu nga xam ne enraad yooyu nga xam ne mooy ñëw ci jëmm yi mooy mooy am ci jëmm yi nee na enraad lu ni toll itam yooyu yëpp maa ngi koy dajale di ko sant suñu borom <laughs> sant googu itam bërëb bu ne itam maanaam chakartuhu inda dawil kufraani fu mu rek sant na fa suñu borom tabaraka wa ashkuruhu bil xarakaati wa sukun yëngu yeeg dal yëpp ak cant laa ko def ci sun borom tabaraka wa taala kulliyati shakiratun lillahi maanaam sama lépp daa maase di sant sun borom tabaraka wa loolu nag moo tax bi mu ñëwee Touba noonu ma ko waxee nga ne moom wax na cant gi yàgg na ko wax nii ma ko waxee rek nga xam ne moom léppam daa maase di sant suñu borom léeg mu ne nawaytu shukrahu ilal jinaani bi ruuxi wal jasadi wal janaani maanaam sama ruux mi ngi sant yàlla cant gu wér te dëggu ci man sama jëmm yitam mi ngi sant suñu borom tabaaraka wa taala xol bi itam mi ngi sant suñu borom waaw léeg mu wax ko ci geneen anam ra rumtu shukuraka bi jismi wala arad bi ruuxi yaa man kuntali bi daa marad mboolem jëmm ji ak mboolem yi koy gaar ci ay xew-xew ci li ñu tudd ay araat mooy nelaw ak yeew ak mboolem lu koy gaar lu ni toll lepp sa man ko lepp dama ko bol def ko cant ci yow yashkuruhul badanu bil anfasi mané jëm ji ak no yi nga xam moy xewé ci ci jëm ji yépp da ma di dila sant cant gi nak motax bimu ñëwé ba Touba nak cant googu ak limi reey reey ak lam ca def ak qasida yim def qasida sant yi ab diwan la bu kenn xamu mu toll teewul ak lool lepp nak mu né képp ko xamné sama mbëgg sa mbëgga bu bis bi ñëwatee nak ma ci sant la yalla bis bobu nak motax ñu koy daje fa Touba dégg nga di ko di ko di ko di ko di ko ci sant eh, bis boobu nag moom am na nu mu ko daa sante am na nu mu ko daa sante waaw bis boobu nag sëriñ bi am na nu mu digle ñu sante ko ci ñu sante ko ci te mooy eh, sëriñ bi dara wax ne cant la ca jiitu nga xam ne xéewal gi yàlla la ko defal loolu moo jiitu ci cant maanaam fi ne ki nga xam ne daa war a daa day daa jóg ne day màggale la jiitu ci moom yéene xol lay doon maanaam bul jug rek ànd ak gaa kër kër jeeg dugg beeg xew-xew yi ni dem Touba déedéet na nga yéene ci sa xol loolu mooy tax jaamu yàlla gi maanaam bu boo demee Touba nga mën ci am lañ fay fay nga mën ca am maanaam jaamu yàlla yépp ngir yàlla nangu ko yéene ja ca laaju boo yéenee am fi ne boo doon julli boo yéene wut doo amuk julli boo yéenee am julli koor bu ñëwee bu loo sonn sonn ci bëccëg bi boo yéene wutoon doo am koor jaamu yàlla yëpp yéene moo mooy tax ñu nong ko mbaa ñu bañ ko nong yéene mooy ruuxuk jëf waaw innama al amalu binniyaati wa innama li kulli li imriin maa nawaa nag lu rëy la maqaama mu rëy la maqaama mu rëy la ndax suñu borom ci moo wax ci alxuraan ne wa qalilum min ibadiya shakur manam ñu bax ñi bari nañ sante kat mom bari wut motax wéru magal wéru sante la du wéru jambat maanaam wéru magal moom murit wut cee sax jema jambat dara mom waaw seytaane iblis mu mu doy war momé ba waxanté ak sun borom té sun borom dakh ko da ko wax ne ko wala tajidu aktharuhum shakirina dina fex ba sa jam ñi duñ la sante seigne touba nak lolé la wéddi mom ñiko ko da leen def ay sante kat motax mu soob leen ci géejug jant mom nak dara wax ne cantoom la ci jitu moy wal tashkuri ni'mata bishuhudi bi kawniha minnatil abidi nga xamne li xewal gi suñ borom la ko jox ne lolou mo jitu ci cant nga sant ko ci ne li kat xéewalu suñ borom la jëmmi seigne touba ci mom xewal la a aseyxu ahmadu niamatun awlaha haadi alxalaayiqa kullaha mawlaha loolu la baabul cheikh Sidiya waxoon xanaa xéewalu suñ borom la ànd ak sëñ bi itam tawféex la xéewal la itam kon li ngay li njëkk a sant te sëñ Mountakha wax ko ci wooteem bu bu mujj bi yàlla na ko fi yàlla yàggal te li ko wér wax ne nan ko sant moom te santale ko yàlla waaw nan ko sant ndax ci moom la ñu amee eh, xéewal yoo xam ni kawe na suñ njort waaw moo nu xettali moo nu dimbali moo nu teete moo nu eh, maanaam sóob ci géeju xéewal eh, jàngal nu diine bàyyi nu ci itam ci diine ji nu di ci nu di ci ba ba kon Sëñ Tuubaa noo koy sant waaye ànd gi nga ànd ak moom yàllaa ko def fi ne mënoon la def nga juddoo wala Japon wala ak xam sax bi kon xéewalug ànd ak moom loolu suñu borom la ko taw feexal Sëñ Tuubaa moo tax ne cant gi la ci jiitu mooy nga xam ne yii xéewal ci suñu borom la eh, bu itam Fallu mu ma wax ne màggal niñ koy defee bal azimuhu bi tilawati quran sëñ Fallou mooy ki ko woote ci Touba ñeek lolu seigne bu mag bi da ko diglé won kenn ko ne di def fa nga euh jamono si sëñ Modou Moustapha itam kenn ko ne fa nga nek nga ko don defé waye nak seigne fallu moko wote ci Touba ko wote nak eh, ci magalé ya jëk am discours bu mu def bu gudd bo xamni na ci nañuy magalé mi ngi ci téré Cheikh mohammedul Mamoun Mahmoud Ñang sëñ Maamoun Ñang Mouhamadou Maamoun Ñang sëñ Moodu Maamoun Ñang te bind na téere bu am solo tudde ko An-Nahjul Qawiim yaakaar naa fii siirati Cheikh Khadim noonu bu ma juumu noonu la téere boobu nag indi na ca discours sañ falu boobu sëñ Fallu wax ne bal azzimuhu bi tilaawati alqur'ani wa dhikrillahi tabaraka wa taala bi anwaa'ihi wa qiraa'ati alqasaa'idi wa itaami taami lil yataama wal masaakin wa silati rahim wa ziyaarati saalihin wa ma jara majraha mu wax ne neen ko màggal ci jàng alquranul karim gis nga xalifa yi fi jaar yëpp dañ daa feddali loolu ba ci sëñ Muntaxa mi waaw sëñ Abdu Laat ci jamonoom loo xam ne kenn ku nen na jàng ñaari kaamil benn mu def ko addiye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam benn mu def ko addiye sëriñ bu mag bi sëñ Seedu ñëw yokk ci beneen kaamil boo xam ne danga koy def addiye ki fi nekkal sëriñ bi moom ñu addiyal ko jamono sëñ Modou Lamine Ba Mouhamadou Lamine Baara moom gis nga jàkk yëpp dañ daa jàng ay kaamil te duñ te duñ taxaw wenn yoon ñu jóg am ñu leen wutu ba ci ba jamono ci tey kon ñetti kaamil yooyu murid bu ne war na koo jàng mbaa mu jàngalu ko jamono yooyu noonu lañ daa def loolu moo jiitu loolu sëñ Fall wax ginnaaw ba mooy zikrullahi tabaraka wa taala bi anwaa yi xeet tudd yàlla yëpp nag istighfar salaatu an nabi laa ilaha illa allah jàng xasida xasida moom mbirum boppam la ci biir zikru mooy zikru boo xam ne dafa jaar ci sëriñ bi loolu mooy xasida mooy tudd yàlla goo xam ni ci sëriñ bee ko def muy xasida xasidaam yii nga xam ne léppi tudd yàlla nga ca istixfaara nga ca salaatu ala nabi nga fa laa ilaha illa allah bari na ci lool dégg nga ndax ila tawaali fi yaqudullaahu asraara laa ilaha illa allah ak ila tawaali fi yaqudullaahu anwaara laa ilaha illa allah ila tawaali fi yaqudullaahu irshaada laa ilaha illa allah xam kon xasida moom lépp tudd yàlla mi ngi ci te barkeel te yàlla nangu ko ba noppi itam te mu jaar nag ci sëriñ bi ci ak ak ci xolub sëriñ bu sell boobee nga xam ne wajaal fuyoo de këlkël yi mu nii mu bokk ci bëb bi leerik sëriñ ba ci la ci la bokk xasida yooyu itam ci li ñuy dundale màggal ci la bokk doog a ñëw nag ci joxe aw ñam kon gis nga foofu la sëñ Fallu indi joxe aw ñam ñu bari suñu classe gi dañoo bëgg a def màggal gi xewlu rek ak bernde bernde nag yooyu ci bokk waaye nag maanaam sëñ Saliou ak sëñ tàmbale sëñ Fallou nii la ko daa waxee sëñ Saliou itam daa wax ne jàng ak bernde maanaam sëñ bi raylu na booba ab gàtt waaye waa daaray kayam nii la ko joxe la ko la ko jox waaw sëñ Tuubaa moom yëkkaruma ne dana woote lekk kese kese kese kese déedéet loolu maanaam doxinu sëñ bi lenn lu ko ci tegtale ba mu jugee ba dañ ko noppee gis ak ay waxam lépp ah, maanaam dëpp wut loolu moo tax xéewal yi ci la bokk bernde yi ndax sëñ bi ci moo waxoon ne bu agsee lu waay mën na ko ci def li tàmbalee ci ganaar ba ca giléem lu ci waay am na ko ci def bu ci waay def dara ba mu rëy ba mu yéem ko waaye bu ci waaye nag eh, def dara mu tuuti ba mu xeeb ko loolu sëñ bee ko ci digle woon kon bernde itam di ko jox waaye gis nga sëñ Fall dafa ne wa itaamu taam lil yataama wal masaakin mooy ña ko soxla jirim yi ak miskin yi ak ñi nga xam ne ñoo ko soxla ñoom ñoom la ñuy togg jox leen eh, teg ca nag silatu rahim yi jokk bokk itam bokk gi itam mooy mbokk ya nga am ca Touba boo demee nga siyaar leen te yàlla tax ak jëmmi sëriñ bi eh, mbokku eh, deret gi ak mbokku taalibe gi ña nga fa am rek ña nga fa xam nga siyaar leen wa ziyaaratu saalihin nag moo ca mujj mooy siyaare gaañu baax ñi gaañu baax ñi nag ñaar lañ ñenn ñi ña ngay dund ci kaw suuf ñen ñi tam ña nga ñu denc leen ci Touba kon ña ci suuf ak ña ci ña ca kaw suuf ñep bo demé nga siar leen waye siar yi nga jital ci nag bërëbu serigne bu mag bi Cheikh Ahmadou bam radiyallahu anhu bërëbu bu sel wowe nga xamné ne ab dër la ci dëri aljana yi xam ngeen ne yoonte bi mo waxone al qabru imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun min xufarin naar bàmmeel bo gis ben mu nek ab dër ci dëri aljana yi wala mu nek am pax ci paxi fee señ bi tëdd nak ak njabotam gu sel ge ay dër ay dëri aljana la aljana nak sun borom waxo na ne lahum ma yasha'una fiha bo fa loko laaj mu jox la kon bërëb bobu lu fa way ñaan rek dang ko am lu fa way laaj ju jox la ko kon fofu bo demé nga fexe ba profito dugg ci bërëb ba waaye bu fa ñaan nak mbiri aduna aduna amul solo sun borom dako ko ak lafum yo lafum yo upp ko solo upp ko upp ko poids fa sun borom motax lu ñak solo la da nga ñaan la upp solo te moy muccu ak don taalibe bu sëriñ bi gërëm ak taalibeem ak bok ci ñi gëna jégé suñu borom tabaaraka wa taala ñi gëna jégé ngeureumam ngërëmam ñi yalla gërëm yàlla soppal leen boom jaam ñi gëna ñi gëna a baax gën a sell gën a nga dajé ngeureumul yalla sëriñ bi gëna a bëgg ci ñoom de nga ñu gëna a nekk ay murit gëna jégé sëriñ bi yoy moy yi ñi ñaan bu ko dee nak ginnaaw ba nak nga siyaar gaay yu baax yi nga xam ci kaw suuf ak ci biir suuf bu ko defee nag des na itam lu mel ne eh, jëmmi Touba rek moom boo fa wàccee faw nga am dara am waa ju baax di wax ne bushra li man xalla fii Touba axaa thiqatin yurja lahu alxayru wal irfaanu wan nuuru Touba boo fi ñëwee faw ñu bernel la benn ñu bernel sa jëmm ji mooy yurja lahu alxayru mooy nga lekk ak naan waaye am na ñoo xam ni dégg nga loolu yóbbu leen fa seen xel moo am moo aaje bernde ndax dañoo am ay laaj ñoñu itam wal irfan dañ fa fekk xam-xam boo xam ne dañ leen ko bernele am na ñoo xam nit weesu nañ loolu waaye seen ruux mu aaji bernde ndax ñoom leeru yàlla la ñuy dakk ñooñu itam bu ñu demee dañ fa fekk leer ya fay dotti dégg nga ñu ñu taataan ca mooy yurjaalahul xayru wal irfaan wal nuuru baaba wul cheikh Mouhamed Fall waxoon na ne ziyaratu Touba ziyaratu Touba mujibu nasri wa zafar liman zaaraha ahra ida zaara fi safara maanaam siyaare Touba dugg Touba rek xéwal la moom rawate nag ci jamonoy jamono jii nii am na bërëb yeneen yu ñu fay siyaar lu mel ne maa u ra aynu rahmati aynu rahmati teenam ndox la boo xam ne sëñ bi ci moom moo ko moo ko gasul woon ci jamonoom ñu sonn ca lool ba mu ba mu ba mu demee ba bënn da caa def ñaari xasida ñaan ca ñaan yu am solo wax ne dumma fuaada charibin minha ila afidati alladina faazu bil ila ñaan suñu borom ku ci naan suñu borom jël sa xol sa boole ko ca xoli ñay texe ëllëg an il qulubi sil biha kulla uyub wa indaka jaalaha mafatihal uyub ñaan suñu borom ku ci naan mu raxas ci yow mboolem luy sikk te ñaanu Sëñ Tuubaa ñaan gu yàlla nangu la waaw waaw suñ suñ lu mu yàlla nangu na ko kon eh, maanaam loolu itam ku fa dem na fexe ba naan ci ni ñuy màggale tam foofu lay daanele mooy na lépp tego ci sunna sëñ bi sëñ sëñ Saliou Mbacké mu baax dana wax ne gàmmu la ci sëñ bi waxoon mooy ta'zimuhu bi sunnati loolu yi moom lañ war a def ci màggal te mooy noon lañ ko war a màggale mooy lépp tega ci sunna sunna mooy lépp lu yàlla gërëm te mu am cëslaay ci diine te yonente bi daa ko digle ak sëñ bi daa ko digle la moom la sëñ bi wax sax ne alayya shukruhu bi ah, sante mooy def farata ak def sunna farata ak sunna nag tudd yàlla ci farata la la tàbbi jokkoog mbokk no noonu maanaam tudd yàlla moom yàlla ko digle udkurullaha dikran kathiran la wax wa dakarullaha kathiran wa dakirina allaha kathiran wa dakara allaha kathiran ya ayuha alladina amanu udkurullaha dikran kathiran yàlla ko digle jokkoog mbokk noonu julli nonu nafile yi nonu loolu lo ci man non lañuy santé bernde itam sun borom a ko digle waaw borom a ko wama wa man nafsihi fa ulaika humul muflixuuna ëllëg yow man xiyaam ñi am jafé jafé ñepp moy ñi nga xamné dewu ñu bernde ña dugg sawara sun borom neena buñu len ñu ma laajee salakakum fi saqar qalu lam nakum min al musallina wa lam nakun nut'imul miskin miskin ñu joxe aw ñam dawu ñu moo motax bokku ñu duggal len sawara kon berne dafa bokk ci ci ci ci lislaam Sëñ Tuubaa wax ne nawaytu shukrahu bi kulli ma abaax lii wa qaada li rabaax dama koy sant ci lim daganal nag yàlla kenn du ko sante lu xaraam wala lu mu bañ ku ko def da nga ca dajeeg merum suñu borom an Tuubaa bërëb la bu sell ku fa jaamu yàlla jaamu yàlla gi dañ koy ful waaye nag ku fa mooy yàlla yitam mooy yàlla gi noonu lay rëyee itam def yaa ngi def danger mooy yàlla feneen moo tane def mooy ko fa Touba tax ku boo demee Touba bul caaxaan bul fo bul dugg lu sa yoon nekkut nekkal yow ci li baax ak li sëñ bi digle mooy tax booy ñibbi ñu gërëm la nga am ay may eh, say say ñaan nangu suñu borom defal la ndimbal defal la tawfeex boole la ak barke boo xam dana la topp ci sa dund boo demee yomal xiyaamit danga xam ne mas ngaa siyaare ji Touba.